xam nañu ne benn bés sax dinañu dee faw wante ci gannaaw dee am na leneen lu am ndax biibal gi def ñu ne ñi gëm ci Jésus yépp bu ñu deyee seen ruu dafay delluwaat ci borom bi ci Jésus Christ ay xaritam walla ay mbokkam waratuñu nekk mukk tiis ndax dee mu mu dee ndax wóor nañu ne yàlla def ñu bëgg te def ñu sopp ba yónnee nu ab musalkat te génne nañu ci bakkaar sarax ga ñu gëm ci almasi bi yeesu sarax boobule moo ñu may dund ba faw ak yàlla doonu dinañu nekk ak boroom bi ba faw nguuroo ak moom nguur bu dul jeex